ah yéen jàll ma wàllu. أنك مجهول بالغيب أتتهمني مظلم لما أما صار من يدلي لو بتودي أنت المظلم كان بيني نبي محمد ku ci nekk ñëw nga toog wétli ko sëriñ Jibi Seck nga ne toog di rakkam di doomu sëriñ Ibrahima Seck macha allah tey mu mag ci sët yi wala sëtaat yi macha allah sëriñ Mouhamadou Roqay Seck moom it mu nga ne toog di doomam macha allah ñëw di teeru la woy juróom wi euh, gan gu tedd gi ko yàlla andil waaye sëriñ Mourtada Seck imaam macha allah moom it mu nga ne toog di doomu sëriñ bi ñëw di ko teerule ganam gu tedd googu euh, sëriñ Khalifa Seck imam di doomu sëriñ Alpha Mamadou woy juróom toogoon na ci fauteuil bii góor gi toog tey moom it ñëw na di teerule woy juróom ganam gu tedd gi kii toog nag moo leen di dalal ndax mooy chef de village sëriñ Alassane Ñaana Seck euh, macha allah moom it di doomu sëriñ bi waaye di xaritam macha allah sëriñ Abdou Rahim Seck bu bàyyi sëriñ Mori euh, macha allah ñu tudd ko góor gi muy doomam moom it mu ngi noonu toog di ñëw di teerule woy juróom gën gu tedd gi macha allah sëriñ Maxtaar Seck bu bàyyi sëriñ Taalaxaar Seck moom it mu ngi nii ñëw na di teerle woy juram gan gu tedd gi ndax lu mel nii su amee ku ci ne naan du ma bàyyi sama papa ak gan gi damay ñëw teerule ko ko tatagale ko sëñ Adama Seck bu sëñ Taalaxaar Seck macha mu nga toog ñëw di teerle woy juram ganam gu tedd gi ak ñi nga xam ni dañuy ay mu xaddam ci kër gi di ay taalibe bàyyi Abdou Kane Euh, macha allah mu nga ne yor alxuraan ja di jàng moom it ñëw di teerule bàyyi abdu ganam gu tedd gi macha allah sëñ Cheikh Ahmad Tidiane Faye macha allah sëriñ Ibrahima Diang kii doon daane léegi tagg yonent bi dañ la naan way juróom rek alaaji makoro mbuub la ca des nga àggale ko macha allah ak rakkam sëriñ As mi nga xam ni mooy léppi góor gi waaye njabootu boppam it ñu lay wax ni ñu ngi nii toog di teerule seen way jur gan gi kii toog mooy sëñ Ibrahima Seck Euh, di taawam moom it ñu ngi la koy présenté kii toog ci wetam di sëriñ Mouhamed Seck cooti moom it di doomu góor gi ak seen rakk yëpp ak taalibe yi jamono ni mu demee la ak ni mu tëdde nuyu bu baax di ci jiital xalif général sekk ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay nuyu bu baax ci turu général Jean Baptiste mi nga xam ne moo jiite gendarmerie euh, ànd ak son chef de cabinet le colonel Ba moom nii mooy chef de cabinet am le colonel Sarr mii ngeen gis moo yore région bi moo yore Thiès ak ak Diourbel ñaari région yëpp moo ko yore ànd ak le capitaine Niang mi nga xam ne moo yore compagne compagnie bi ñoom ñoo ànd ak moom tey ziar si la. tànk yi mu fi indi yi mu fi doxe nag mooy tànku président de la république chef suprême des forces armées tànk yi yi mu fi indi tey mooy tànk le ministre euh, de la défense tànk yi mu fi indi mooy tànki boppam waaye tànk yi mu fi indi mooy waa gendarmerie gépp gépp gépp ba ca gendarme auxiliaire ba à travers les officiers ak yëpp avant muy ñëw tamit ñëwam bi ñi ñëpp ñu lim yëg nañ ko ñi nga xam ne ñoo sës ci moom di généraux ak commandement bi yëpp xam na ne tey jii day ñëw Thiénaba mu ngi ñëw nag di la ziar bu baax sa mag ju tedd ji fi jóge di borom euh, lislaam waaye di borom alxuraan te bu yaatu woon lool te ku ko namoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñëw nekk ci wetam ndax dagaan loolu te mu mënoon ko lool nag te tamit woyofoon toy ba nga xam ne ñëpp ñeme woon nan ko waaye dis gan ci biir ña ngi la koy ziar bu baax di ko ñaanal bu baax a baax a baax mu xippee ci euh, firdaw si tànkam yii tànk ziar la ndax bi ko fi président de la république tegee euh, maanaam communauté religieuse yépp la waroon na seeti waaye ci diggante bi Covid bi daal di dugg si waaye wax dëgg bëggewu ko woon nii waaw waaye nii la ko yàlla dogale ñu lay ziar nag di ziar nag notabilité yépp yi fi nekk yépp di sant ci hymne national bii ngeen yëkkati muy hymne nationalu ba te bi nuy génn bi nuy ñëw rek maa ngi koy wax ne ko fii moom lislaam kese la ndax euh, tey jii man ma présente sama bopp Samba jow laa tudd Alaaji Samba Diaw dëkk Louga waa kër Birama Fall Birama Fall mooy sama nijaay mooy sama maam mooy sama nijaay donc damaa ñëw man man damaa ànd ak général bi waaye damay dama damay dama mën naa ñëw ci bunt bi gàttandu général bi dalal ko ndax fii laa bokk sama sama yaay Fandiaye Fall li ko daan yëkkati dëgg dëgg dëgg bu nu sikkiree ca kaw rek nga daan gis ni mu daan mel waaw ci soppeeku bëgg lool ba kon tey jii général bi ñëw na këram ndax ñun ñëpp mooy sunu mooy sunu kilifa waaye teg nañu foo xam ne yërmande kese lay doon ci sañ-sañ boobu nag mu seet si la sàkku nga ñaaral ko bu baax a baax a baax ba mu la jaalee nag sa mag ji bu baax a baax a baax a baax fas yéene tamit ànd ak yow ci liggéey bii mooy liggéeyu lislaam bu baax a baax a baax waaye sàkku tamit nga ñaanal ko bu baax a baax baax ci lii nga xam ne da ko yore réew mi te yore leen ko bu baax a baax di ñaan ci sa porte parole ak yépp lépp loo xam ne jë jóge na fii muy cana ba ak lu ko di ko wër yépp ak ci notabilité yépp loo xam ne wàcc na fi muy lu mën a mën a doon ne ko yëg colonel baa ngi fi mooy colonel Sarr moom du jóg seen biir commandant compagnie bi du seen commandant brigade bi du fi jóg ñooñu ñoo ñi sës ci moom te nekk fii waaye sañ na di leen ñaan lépp loo xam ne fanaan na ci yéen na fanaan ci moom ndax loolu la ko fi président de la république tegee loolu tamit la fas yéene tamit doxal ci réew mi ba mu daj di ñaan tamit nga ñaan tamit ci lii nga xam ne mooy mbas mu dal ci réew mi di Covid bi nga ñaan ci bu baax a baax a baax a baax mu teggee ko ci àddina bépp nag waaw te fii am nañ fi yaakaar waaw ndax daanaka fii la les guerriers de l'islam les guerriers de fii la fii la jóge waaw fee fee cosaan bi waaw waaw li may wax xam naa ni ñoom xam nañ ko ay man it xam naa ko waaw waaw waaw fii moom luñ fi ñaan luñ fi ñaan day daal di am mu sàkk nga ñaanal ko bu baax a baax a baax commandement bii mu yore. te yoreel ko président la République yoreel ko réew mi lépp aw ci yoon bu baax a baax sedd guy ba nga xam ne benn tolof tolof du ci am loolu daal dénk na la ko bu baax a baax a baax ndax nii may waxee rek day wax ne day daw day wane ne damaa dama dama damaa bokk ci damaa bokk ci yow waaw kilifa googu nga xam ne nag nekk jóge na ci man ñëw ci yow kilif koog nga xam ne moom jóge na ci moom ñëw ci yow kilifu googu yépp yépp jàppal nu ko téel nu ko te ñaanal nu ci ña ngi lay ñaanal tamit ñu nit nga yàgg fi lool lool nga yàgg fi te ndax sagob cene bu moom sagob lislaam la sagob lislaam la maa ngi koy wax colonel bi léegi ci biir oto bi ne ko fii ñu jëm day lislaam kese la amul leneen kon général bi ma ngi noonu dafa ñëwoon rek tey di la jaale si waaye muy visite de courtoisie boo xam ne dafa bëgg relation yi muy relation boo xam ne macha allah loo soxla ci moom bul ci xaar dara woo ko directement lim ci man ak lim ci mënul yëpp dana ko def kon ñu ngi sant bu baax di leen dénkaat tamit njaboot gi ma ngi lay dénk njaboot gi ndax fu ñu toll tamit day wax ne njaboot gi nga xam ne. ñoom ñoo nekk ci yow muy colonel bi nga xam ne mooy li yilif ñëpp ba ci capitaine bi ba ci commandant brigade bi sax njaboot la ñu ci sa disposition la nekk loo soxla ci ñoom rek yërul ngay tàggoo waaw te ñoom lu ñu yëg moom dina ko yëg ca saasa di leen sant di leen gërëm di sant tamit njaboot gi rek waaw loolu daal kàddu yi la <laughs> yoo xam ne daal kàddu kàddu kàddu kàddu ko euh, ak njàll la waaye kàddu mbégte la ñu ñëw fii ci kër gu mag gii nga xam ne mooy kërug lislaam ñu ngi sant di ngi gërëm bu baax a baax xam naa li ma waxoon sax bari bari na waaye xam naa ne jombul lool rek laa ci mën a génne waaye ñu ngi ciy jégalu bu baax jërëjëf jërëjëf Seck. général bi sëriñ Alsaan chef de village ne ñu ngi lay dalal bu baax ci turu sëriñ bi ak turu Seex Jibrilu Seck nga xam ne mooy taawu sët yi turu sëñ Murtada Imaam. sëriñ xalifa Ibrahima Seck imaam sëriñ Mouhamadou Roqaya waaye juróom doon bàyyi Ousseynou Khoudia nekkoon na fi xalifa ci turu sëñ Maxtaar Seck imaam doomu sëriñ Taala Xaar baayam nekkoon magu sëriñ bi fi jóge ak mbooloo mi fi toog yépp sëriñ Abdourahim sëriñ maam Ale sëriñ baa ngi am kontante bu baax ci teewaay bi nga teew fii ak tànk yi nga ñëwee ak yéene ji ak pas-pas bi ñu ngi lay delloo njaal bu baax ci sunu wajur wi fi jóge muy baay Cheikh Ahmad Tidiane nekkoon sunu baay nekkoon sunu wajur waaye nekkoon sunu xarit toog na fi diir bu yàgg bari ci yokk lu bari ci dëkk bi. ak diine ji. ak bokk gi. ba yàlla matal liggéeyam ba yàlla matal liggéeyam. sëñ Abdourahim ñëw toog. remplacer ko fi. moom it di nit ku baax. ñu xamoon ko ci bay. ñu xamoon ko ci bay. ak jaamu yàlla. ak nekk ca tool ya. ci loolu rek lañ ko xam. ak wettali ay magam. ak wettali ay magam. ak jàppale leen. jàppale leen. ak gunge leen. gunge leen. ku fi mës a toog xalifa képp ku mës a nekk xalifa. gunge na la gunge na la. 46 bi bàyyam jógee. 46 bi fi waajuram jógee. sëñ Ibrahima nekk fi. sëñ nekk fi. ba léegi mu nekk huitième xalifa. ba léegi mu nekk huitième xalifa. xalifa yi fi jaar yëpp. xalifa yi fi jaar yëpp. kenn ku ne gunge na la. kenn ku ne gunge la. bayal na la bayal na la. demal na la tool demal na la demal na ca daara ja demal na taxawu na la taxawu na la. ba agsi ci 16 bi. kon agsi na fi agsin bu rafet. sëriñ baa ngi lay ñaanal bu baax. lii la président dénk. yàlla na yàlla téyal la ci. ba yow doo yëg sax diisaay bi. sëñ bi nee na ab yan. yàlla am na téeñ boo xam ne. yàlla am na téeñ boo xam ni. nee kum ko roofal. nit ñooy yëg ni yanu nga. waaye yow doo yëg diisaay ba. yàlla na yàlla roofal la téeñ booba. daraja yonent yàlla Muhammad. nee li ngay sàmm. ak ñi lay sàmmale. ci régions yi. département yi. yàlla bu ci dara ruur ndam lu ci waay mës a am ndam lu ci waay mës a am général bu fi jaar général bu fi mës a jaar ndam lu ci am ndam lu mu am yàlla nga am ndam lu ko ëpp sëriñ baa ngi la koy ñaanal ci kàddu yi sëñ jaw mi ci kàddu sëñ jaw mii doon wax man defoon naa am njaween sax man defoon naa ni am njaween mënta wax lii sëñ Cheikh Amadou sunu mag day wax ni sëñ Cheikh Amadou sunu mag day wax ni boo gisee am njaween soo gisee am njaween mbaa am ngëyeen mbaa am ngëyeen mu wax wax ju jub mu wax wax ju jub wala mu def def lu jub mbaa mu def lu jub bu la nëbbuwul bu la nëbbuwul. jaar na ci loxoy ku sant Seck na ci loxoy ku sant Seck. waaye xam naa ni. waaye xam naa ni. maam maam Gora Mbengue Fall. maam moo tax mu mën a waxee noonu. moo tax nga mën a waxee noonu. waaye li mu wax ni barab la. li mu wax nag barab bi barabu ñaan la. wallaahi barabu ñaan la wallaahi barabu ñaan la. sunu maam Amari Ndaag mi ko sanc. diine rek la ko sanc woon. diine rek la ko sanc woon. ak mbaax sell ak jaamu yàlla ak tagg bi ñu doon tagg yonent bi moom la ñuy def. bu ñuy ngénte moom la ñuy def. bu ñuy dëj moom la ñuy def. bu ñuy ceetal moom la ñuy def. bu ñuy kasak moom la ñuy def. tagg yonent bi rek. ndono loolu. ñii ko donn ba léegi ni bàyyiwuñ ko. kenn ku si ne. moom lay sàmm guddi. moom lay sàmm bëccëg. ñun ñëpp ñu ànd ak sëriñ bi. di ko sàmmle. te ndono loolu. mooy li ngeen di sàmm. mbaax. jub. tegu ci yoon ak tegu ci aw yoon. ak bañ lu bon ak bañ lu bon. loolooy ndono li. kon daal général li ngay sàmm. moom la sëriñ bi sàmm. moom la sëriñ bi sàmm. li sëriñ bi sàmm yow loolu ngay sàmm ñaar bu ñu bokkee ak càmmeef faaw nuy waxtaan di xool nan la ñuy jubbantee jur ga sëriñ baa ngi lay gërëm bu baax ne mu ngi feeñal cant bu baax ci ñi la nekkal ci kees te yilif ñi nekk xombal ñu ngi taxawu sëriñ bi bu baax lépp lu fi mës a jaar waxtaan nañ ak Baye Cheikh ba loola rafet ba canaba ñu yiir ñu malaanu yërmande banu jéggi loola ban jéggi loola bàyyi sëriñ bi ñëw toog bàyyi sëriñ bi ñëw toog nga ñëw feddali kàddu yooyu général sunu xel dal na nit bu la yilifee sañal la féeta a kaw ñëw ba agsi ni la maa ngi lay déglu ci li nu seq sa xel day dal sa yaakaar day dolliku mbootu la yor moo sëriñ bi nag mbootu la yor moo xam ni. ñëpp la jaboote ñëpp la jaboote. njabootu léegi ku leen jaboote. lépp nga ca biir. mu ngi lay ñaan. léeg-léegi. kii jamono dëng ci kawam kii jamono dëng ci kawam. léeg-léeg kii dëng ci kaw jamono. ab sëriñ moom du mën a ñàkk a ñaan. ab sëriñ du mën a ñàkk a ñaan. intervention du mën a ñàkk. ndax danoo jaboot. te ñun liñ jaboote ñun lañu yaakaar léeg-léeg kenn daw ñëw jàmbat loo xam ni mënees na koo ñaan léeg-léeg kenn wax loo xam ni dee su ko mën a ñaan waaye yiñ mën a ñaan sëriñ bi nee nga di ko ci dimbali ndax jaboot neexul daa metti brigade bi ñu am fii poste bi nga xam danoo bett nee na CRD ministre de l'intérieur bi passé lañ indi équipe bi abal leen sunu poste de santé. ñu abal leen sunu poste de santé. sëñ baa ngi lay wax ni bëgg nañ local bu baax. boo xam ne gendarmerie koy moom. koy moom. ñu tabaxal leen ko. yaatu mu yaatu. ñu équipé ko ñu équipé ko. ndax ñi fi nekk tam. ndax ñii fi ne. bariwuñu matériel. bariwuñu matériel. te tubaarkàlla commune bi. te commune bi. dafa xaw a yaatu. dafa xaw a la yoo xam ne. daanaka ci xombal la aju. te xombal xaw na nu sori. kii bi mu fi dikkee léegi. léegi. secours la ci ñun bu baax. moo tax sëriñ moo tax sëriñ baa ngi bëgg. luy équipe bu gendarmerie. lépp luy équipe bu gendarmerie. ñu am oto. ñu am oto. am matériel yu doy am matériel yu doy. ñu dolli personnel bi. ñu dolli personnel bi. ndax dëkkub sëriñ tam nag. ndax dëkkub sëriñ tam. day dëkk rawtukaay. day dëkk rawtukaay. di dëkk làqatukaay. di dëkk làqatukaay. di dëkk nëbbatukaay. di dëkk nëbbatukaay. te sëriñ bi lim bëgg mooy. te sëriñ bi lim bëgg mooy. mu mel na meloon démb mu mel na meloon démb. ñu jub nekk fi. ñu nekk ñu baax nekk fi. ñuy jaamu yàlla nekk fi. ñoo xam ne la réew mi bañ. ñoo xam ne la réew mi bañ. ci lu bon bon ñëpp dañ koy bañ loolu daal général faaw seen loxo ne ci faaw seen loxo dugg ci ak seen jàpp ak seen taxawaay nee ñu ngi jub tabaski commandant bi daana def bu ñu jub tabaski commandant bi daana def bu ñu jubee tabaski guddi gu jot muy wër fii guddi gu jot muy wër fii ndax ngëyeen yeeg njaween yi dañuy jaar ci ginnaaw loolu tam xam naa fàttewuñ ko suñu liggéey la ak ñoom waaye wax gi ma koy wax feeñal cant la rek. damay feeñal cant rek. waaye seen taxawaay mat na sëkk. waaye seen taxawaay mat na sëkk. mat na sëkk foofu. mat na sëkk foofu. ñoo ngi jub gàmmu tam. ñoo ngi jub gàmmu tam. lépp lu sécurité bi gën a bari. lépp lu sécurité gën a bari. ci dëkk bi ci dëkk bi. ak côté sëriñ bi. ak li wër dëkk bi. loolu day dalal sunu xel. loolu day dalal xel. gàmmu paa ba ci jëkk rek. gàmmu paa bi ci jëkk. mooy am sécurité. ñëpp dal. am jàmm. ñu gàmm si jàmm kenn du réer la kenn du agressé bañ gàmmook jàmm te loolu ci yéen lañ ko yaakaar ñun bu ñuy def réunion bu ñu agsee ci tomb gendarmerie agsee ci tomb gendarmerie dañ naan foofu amul problème ñoom ay militaire lañ dañuy ñëw nga wax li nga bëgg ñu def ko wax ji sax xaw naa bari wax sax xaw na bari en tant que chef de village waaye sëriñ bi sant na gërëm na ñaan na baax a baax bu baax a baax. général yàlla mbaax toppe leen fii. ak wér gu yaram. ak sutura. ak teraanga. mag ñi sañ ci dëkk bi mag ñi sañ dëkk bi. aajo bu leen waay ma a wax. bu leen waay mos a wax. dañ naan ñëwal ba ci buntu jumaa ji. dañ naan ñëwal ba ci buntu jumaa ji. nga simmi sa dàll. taxaw fa taxaw fa. yéene te dem ñibbi. incha allah day faju. wasalaamaaleykum. sëriñ baa ngi lay nuyu. yilifee nga yilif. waaye bi nga yilifee li nga yilif. sant tin. sant tin. ku jàkkaarloo ak yow. ku jàkkaarloo ak yow. xelam day dal. xelam day dal. ndax ku juum. ndax ku juum. mbaa nga tooñ. mbaa nga tooñ. bëgg nga ku la tin. bëgg nga ku la tin. kon bi nga santee noonu rek. nee kon bi nga santee sant woowu. li ñu la jox mérito nga ko. li ñu la jox mérito nga ko. yàlla mi mën a sàmm. yàlla mi mën a sàmm. yàlla na la sàmmal boppam. yàlla na la sàmmal boppam. ña la yilif. ña la yilif. yàlla na nga déggook ak ñoom. yàlla na nga déggoo ñoom. ñi nga yilif. ñi nga yilif. yàlla na nga déggoo ñoom. yàlla na nga déggoo ñoom. su ko defee jàmm rek kay su ko defee jàmm rek kay am. yàlla nañ ko yàlla defal. yàlla nañ ko yàlla defal. am na loo xam ne nag. am na loo xam ne nag. daa koy garder ci sama xol. daa koy yow la. pour ay ñaan la. pour ay ñaan la. dara bañ laa fakkatal. dara laa dara bañ laa tiital. dara bañ laa dara bañ laa jaaxal. dara bañ laa jaaxal. ci zaahir ak ci baatin.